di leen sant yéen taalibe yi di leen gërëm ci li ngeen def yéen taalibe yi wàcc ngeen tey buñ doon laaji bakkan da ngeen ko joxe ba mu doy tey buñ doon xare da ngeen xare ba mu doy buñ doon liggéeyalu da ngeen ko liggéeyee ba mu sotti waaye loolu la dëkk bi cosaanoo loolu la borom daaru xam loolu la dëkk bi cosaanoo loolu la yare woon ñëpp liggéeyee ak jaamu yàlla la yare woon ñi fi jiitu woon seeni maam ak seeni bàyyi yéen taalibe it ba ngeen jógee tànk yooyee ngeen teg seen tànk te du ngeen ci dëpp ba mukk kon yéen amee nañ leen gërëm sant nañ leen ci lii ngeen def ndax lii ngeen def jaaduwut mbooloo mi jaaduwut taxaw mi jaaduwut reewande amu ci wax noonu amu ci da ngeen koo def ngir bëgg sëñ Touba da ngeen koo def xam ne tey bu doon jiyaat da ngeen di wari fas wala ngeen dox ba ngeen jeex wala ña ngeen di jaatal jeex <coughs> kon nag ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm bu baax yàlla na leen yàlla fay ci barkeb sëñ Touba ak Thierno te da ngeen am lu kenn amul sëñ Ibrahima Faati mii ngeen am kenn amu ko daa taxaw wax ne yow buñ taxawee may fay yépp du ma seen sëriñ nag waaye maa seen jëwriñ te jëwriñ la ñuy jox añ bi ne ko demal séddale ko kon nag ndokk bi nu féeteeg jëwriñ ji nga xam ne mooy séddale añ bi kon na ngeen santaat yàlla bu baax te fonkaat seenu taalibe fonkaat sëriñ bi jàpp ko seen fukki loxo la la ca des lii wane ngeen li ngeen ci man lépp yéen fii rek ngeen mën a yem la ca la ca des lépp nag kilifa yi damaa bëgg ñuy wax ñi fi nekkoon dañuy wax sëñ Ibra Faati jàpp na fii aw nit sëñ Paate Sàll wo Mor jebu wo Matar Samba ma sayr Sillu na len na ngeen leen fal ba fo nga tuddaaru yam ngeen wàcc leen foofu soog a dëpp sëñ Mouda Balla dor na fi aw nit bañ doxe fis gàddaay sëñ Mouda Balla yent wer yu na daana woote wax na lima don bañ ci dëkk bi lay bañ duma bëgg mukk lima don bañ ba ba tukki lu Mbacké digg ba Mamadou ku ne dégg nako ko te dara lu ko ba Mamadou Dia ne damay top jigen ñi dama len di maye du ñu taxaw wàllu sëñ bi da koo wóolu mu ñëw mu ne ko li nga xam ne mooy yoon ci yow ay tëddi lañ la defarloo akum ndox akum hôpital ak yoon keroog Mamadou Dia ko ton ne ko fii ma toog di bi fi tubaab bi toogee daana woote wax ci politique wax ci leneen ak leneen sëñ Fall ne ko déggal li ma la te boo ko laalee day laax na lakk laax lakk na ko mu dellu toog fii ba yàgg ñu téye fi kilifa mu ne kilifa gi kenn la ci lislaam kenn lislaam nag ne Senghor na nga ko bàyyi suba suba kennu lislaam la te yaa ngi bëreeg lislaam te lislaam ku bëreeg moom dalay daan sengoor bàyyi ko loolu lépp baatub kilifa la ñu dellu jàpp fii geneen kilifa sëñ Fallou ne leen diw bii mooy yoonu murit mooy yoonu murit yoon wi nag xajul cib kaso kon na génn tey tey tey tey keroog Senghor da ko ne luwaa bi da koo tëj tëjulu ko mu ne ko luwaa bi du alxuraan ba mënee koo soppi nun no togo ne ko def nangam nañ ko def nangam na jeex nak legi na jeex li la ko sëñ Fall wax mu jeex seigne abdullah ba muy tas seen murit dafa jek jek xey tass ko ne bu mu amati bu ko ken déggati ñu ñu def lola keroog bima ande ànd ak sëñ Abdou Khouros dem ci mum ci mbirum Alaaji seigne sall keroog dafa téléphoné Madoune Fall ne ko nel Abdou Diouf lama ma ak su je génnee na ko wax ma génn ci lama ko waxoon keroog la jeex kero bi muy indi tasat murit noonu la def kero bi muy indi sàndarma yi noonu la def kon lii itam wax dafa jot na kilifa yi wax seen baat moo ëpp doole lépp nañu wax bu daaru salaam na wax bu daaru musti na wax bu mbàkk xewar na wax bu kër sañ affaire na wax xalif général na wax jërëjëf te yii ñu def yëpp déggu leen ci fenn fu ñu bind ci loi yi wala ci texte yi ne ko wax ab sëriñ lu dul noona nañu la jàpp wala nañ la pine wala nañ la amu ci dëgg la te kilifa yi ñooy ñooy Sénégal kilifa yi ñooy senegal te ay chef d'état bi ak ministre yi koo ciy waxal bu ko xuumtoo boo dee kilifa wax ko ci kanam mbooloo mi li nga bëgg sëñ Abdoulaye fi rajo bi nanan gàdd rajo bi def ko ne bu Mali ak bu ak bu Mauritanie lii la waxoon waaye daawul gisee ak ñoom daawul def dara waaye àddina bi day bëgg a yàqu ci loo xam ne lii alal la koy bëgg yàq jël ay nit teg leen ci wetu sëriñ bi ne ko fexeel ba bu sëriñ bi wax dara. fexeel ba lu sëñ bi yendoo ma ma fanaanoo ko fexeel ba lu sëñ bi fanaanoo ma yendoo ko nga nekk fa defe ne sëñ bi nga fi nekkal fekk sa bopp nga fi nekkal yéen taalibe yi nag wàcc ngeen yàlla leen yàlla dimbale jàpp leen na waaye kilifa yi nañ dellu ci wax yenti weer yu ne sëñ mu daa bal daan woote fii wax li mu wax kon nag na nekk ca loola te buñ ci jóg wasalaam jërëjëf ayyuhal udurul kiram أيها الحضور الكرام أيها المسلمين والمسلمات يا أحباب سيد القديم سقارا وكبارا إناسا وسقورا نقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ونوجه إليكم تحيات خالصة من الشيخ الخليفة باسم ناطق الرسمي الشيخ محمد البصير نوجه إليكم تحيات خالصة من صميم وأعماق قلوبنا ونفرح بكل سرور بهذه جلسة القيمة ونقول لكم مرحبا أهلا وسهلا فإن إمامكم وإمامنا الشيخ الخديم هو الذي تضحى نفسه خدمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك قال أجاهد الكفار بالآيات والحديث بالالتفات كما ورد في القرآن الكريم ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم لا شك أن أعداء الإسلام منذ ظهور الإسلام ما صالوا ولن يصالوا على الاعتداء بالإسلام وأهله أيها الحضور لذا هاجم صحفي أمريكي أو فرنسي على صحيفة زون أفريك مسيئا لصميم قلبنا مولانا الشيخ الخديم ولكن أراد أن يسيء شخصا سين الله كله وطهر كله وجعله من الأولياء الصالحين أيها الحضور الكرام كما عرفتم وكما سجل التاريخ أن هذا الشخص البارز الذي فاق الكل في حسن الخلق اعتدى أعداء الإسلام منذ ثلاثين وثلاثة وثلاثين سنة متوالية ولكن مع ذلك قال الشيخ عفوت الأعداء طرا لأنه عفى كل أعداء وكل من وجه إليه اعتداءات إلى شخصه الكريمة ومن هذه الظروف نتأذف ما جرى ونقول أيها المريدون أيها المريدون والمريدات فإن سيقكم وإمامكم وإمامنا تهر الله ظاهره كما تهر باتنا ولا شك أن الاعتداء بالمعتقدات الدينية دينا إسلاميا أو مسيحيا هذه الاعتداءات ما رأينا أكبر منه ظلما بهذه الفرصة نغتنم ونقول الحكومة السنغالية نحن أتباع سيف الخديم لسنا من الذين يتظاهرون لفقد شيء ما بل نحن نتأزف ونتظاهر مظاهرة سلمية لما جرت بيننا وبين عدو الله لحنة الله عليه كن هذا الشيخ الخديم قال براس من بارسني براس من يبارس المنتقم بارس لم ينهني مبارس وفيد ربي بارس إبليس لا يبارس jundal asiisil ahad ñu gàttal mbokk yi xam nañu ne li ñu ne fii dajale jàmm rek la ak jàmm salaam ñu ko sëriñ Seex waxe ginnaaw bu ñu nuyoo ñëpp ñuy xamle ne dafa am lu xew ni ngeen ko xamee ci jëmm ju sell jooju nga xam ne suñ borom moo laabal biiram laabal bitéem laabal zaahiram laabal baatinam te ko bëgg a tilimal sa bopp ngay tilimal

bu kenn am njàqare ci seen mbir bu kenn jàpp ne ñuy yàq lañ wala ñuy violé ñoom ay non violence lañ bu mbooloo mi matee ay junniy junniy nit gis ngeen mbooloo mi nii mu toll waaye doo ci dégg ku damm xat leneen lu dul noonu itam sëñ Tuubaa noonu la yare ay nitam kon loolu itam nañ ko ko xam ñun ñëpp mu mel ni li nga xam ne moo xew ñi ngi wax ci turu mbooloo mi ñi ngi wax ci turu mbooloo mi di wax ne loolu de ñi ngi interpeller gouvernement bi di ko wax ne ko ni mu méttee ñëpp noonu la ñu amuñu fenn fuñ mën a jooyee luut ci nii ak ci téere bi yàlla bi subhaanahu wa ak yëgal ko ko moom nag kon ñi ngi wax ci mbooloo mi ne ko ni ko ñëpp defee ni méttee ñëpp mën nañ ne nu ko raw lañu ñu méttee ndax ñun réere wuñ ne Cheikh Ibrahima Fati moo doon loxot nijooru Serigne Touba ba lam waxoon tubaab ba bam nee ko da ngay tuxu wax tam xamal ko ne ko bu fekkente ne tuxu Serigne Touba digal na ma ko danaa ko def waaye nag jalgati ci kër Serigne Touba wala alal Serigne Touba da ngay jalgati sama jëm ba pare door a jàll loola itam moo répété wu. ñun Daaru Muxti dañoo gëm ne lépp lu jëm sëñ Touba suñ kaw lay njëkk a jaar ba pare loolu jotaay bi wane na ko ginnaaw nag li teew ay mbooloo yu dul jeex la ñun ñooy wax ci turu mbooloo mi ne ñu ngi wax ne. bu fekkee ay citoyen lañ dëkk ci réew mi am na yu bari yuy xew ñi ngi yëkkati suñu loxo ne bu fekkee am nañ ca pexe day neexuñu ñi ngi wax ne journal boobu bu fekkente mën nañ ñoo fexe ba moom du fi servirati dara loolu mooy li ñu gënal ñi ngi wax ne fan yi xam nañ ne coow ngóor jigéen bari na ci dëkk bi te suñu diine nanguwu ko suñu sëriñ bu baax yi wax nañ ci guddi wax ci bëccëg kon ñi ngi interpellé képp ku ñu war a interpellé di la wax ne la ñun taalibe murit rawat na ñun Daaru Muxti gi ñu bokk d'accorduñ ci tey d'accorduñ ci suba te duñ ci mas a d'accord ndax dund suñu diine rek la ñu bëgg wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatu